xamante ne nii comme ni ma amee habitude di ko wax rek ay ndaw ñoom ñoo koy def te ndaw ñoo ñu ndaw lañu yoo xamante ne nii yu bëgg seen réew déjà bëgg seen réew bëgg seen bopp moo waral ñu dugg ci métier bi ku ci nekk di ko def li nga ci bëgg mooy nga teral ci sa ay waajur ku ci nekk di ko def li nga ci bëgg mooy nga yóbbu sa bopp foo xamante nii dina tax ëllëg ñu respecté la te loolu xale yaakaar naa ne bu nekkee ci tànk yooyu nekk na ci li nga xamante ne moom moo ko war ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax baax di leen siyaare mbokk yi dafa tàmbali liggéey ci làmb boobu nekkul promoteur boobu mu ngi doon bind ci làmb nekkoon ci journal yi nga xamante ne nii ñoo gënoon a mag ci Sénégal doon ci bind loo xamante ne ni à chaque fois bu ñu ko liiree bokk na ci li nga xamante ne ni indi na làmb tey jii ci fii mu tollu mbokk yi tey ki ñu woo fii bu ñuy joxe tey jii ay ndomboy tànk di ko joxe ci làmb wala ñuy nommé ay ambassadeur ci làmb kooku yaakaar naa ni kenn dootu ko jéggi ci làmb parce que nit bi nga xamante ne nii dafa nekk di bind si làmb ba mu yàgg mu ne déedéet nu ma yem foofu damay jàll nag dem def li nga xamante ne nii moom la doomu Sénégal yëpp di def mooy lan jàppale ñi nga xamante ne ñooy xale yi kon mu dugg ci wàllu promoteur kon wax dëgg yàlla Boubacar Niang suñu confrère Boubacar Niang suñu grand frère Boubacar Niang suñu mag ñi ngi lay ndokkeel bu baax a baax ma bëgg nag képp ku fi teew nga tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax balaa ñoo tàmbali ñu koy félicité bu baax ndax li mu def macha allah lu rëy la mbokk bi mu dugg see ci làmb dafa dugg ci làmb fekk fi ñoo xamante ne nii bu làmb doxee ñoom it dañ cee am cër muy les l' association des promoteurs de lute ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di ko tàmbali ci ki nga xamante ne nii wala di jël nuyoo bi teg ko ci ki nga xam ni mooy pap Abdou Fall président tey teewu fi waaye Assane Ndiaye mi ngi fi Fallou njaay mi ngi fi yi daali mi ngi fi suñu papa Fallou Faye mi ngi fi promoteurs yi ñoom ñëpp jug nañu ñëw jàppale ki nga xamante ne nii mooy seen frère. mbokk yi moom nag mu wooñu ci bis bu mag boo xamante ni nii war na am la premier février fan lay am ñu ne arène nationale guléet la ci làmb ñu tuddee drapeau ab combat mu ngi soog a am c'est de l'innovation macha allah ñu ngi lay féliciter Boubacar di la ñaanal yàlla suñu borom defal la ci jàmm ndax combat bu mag bi mi ngi ko tuddee drapeau combat bi nga xamante moo war a dox ci diggante sit ak Papa Sow kon muy drapeau Siteu Papa Sow loolu doon loo xamante ni nii wax dëgg yàlla c'est une boole nag ay ndaanaan ci làmb ndax ñu leen nee bu buñ ne doomi mbër jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñam lii moo waral ñu koy wax sa baay dafa nekkoon ci làmb daan daan fi jël bu ne bëre fi tàkkusaan bu nekk ba tax tey jii nga so tax ngemb li génn ci kër gi ñëw ne da koy aw yal na yàlla jàppale la ci bu baax a baax a baax a baax kooku mooy fils de Zallo di daje nag ak ndaanaan di daje ak koo xamante ni nii bu feccee mu neex bu bëree mu neex moom it di ndaanaan ci li nga xamante ne loolu lay def gis nañ combat yi nga xamante ne nii yooyu la bëree bu ci nekk rek gis nañ ndam li ni mu koy amee du boq ak ni mu bëree woon kooku muy caatu ngéwél bu écurie Yoff ñu koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm moom tamit mbokk yi Boubacar ñaa yamul foofu ndax jël na ki nga xamante moom mooy jaasi pël boole ko ak ki nga xam mooy pléña mbokk yi ki nga xamante moom mooy lynx dina fa daje ki nga xamante moom mooy géant géant Balla waaye Xadafi bu jof yoor dina fa laale ak ki nga xamante ne moom mooy nanu bu ñëwee ci combat préliminaire yi Valdo moom moo fay daje ak Boy Mal Boy Malika Rhinocéros Rhinocéros nag dafa soxor moom mooy daje ak góor gi si Dieng Rhinocéros bi ma xam mooy Rhinocéros animal moom dafa soxor di daje ak ki nga xamante ne mooy góor gi si muy combat bu am solo malaajoo moom moo fay dajaa ki nga xamante ne moom mooy Modou Anta mbokk yi bàcc junior dina fa daje ki nga xamante ne moom mooy 2S ah. Cheikh Cheikh Mbaba numéro 2 dina fa laale ak ki nga xam moom mooy câble waaye reenu guy moom moo fay daje ak ki nga xam mooy mooy caporal ficelle mbokk yi ñu ngi ci benn bërëb boo xamante ne nii mi ngi ci ndakaaru ñu ngi ci presse café te bu ñu xoolee bërëb yu mel nii jafe woon na sax làmb di làmb ñu daan ñu ko daan ubbil làmb waaye ñoom waa presse café seetlu nañu à chaque fois bu làmb soxlaa dañuy ubbil làmb seeni ay bunt ñu leen di jaajëfal tàmbaleewul ci daa ci euh, ki nga xamante mooy Boubacar Assane Ndiaye indi nañu fii yeneen ay promoteur indi nañu fii baal leen ma de di loo xamante ni nii lu am solo la kon ñu ngi gërëm bu baax a baax waa presque Café te loolu yëpp bu amee yaakaar naa ne sunu frère bi nga xamante moom moo fi nekk di Mbaye Diouf loolu yëpp ci moom lay jaaree ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ndokkeel di ko siyaare bu baax a baax di nuyu nag sunu papa yi nga xamante ne nii ñu ngi ci salle bi ndax mbokk yi bu ñu leen waxee ni leen combat bi nga xamante ne nii moom mooy combat bu mag bi. ki ñu ko tuddee moom mooy Siteu Papa Sow waaye wax nañ leen léegi promoteurs yi nga xamante ne nii teew nañu fi waaye bu ñu ñëwee ci combat spécial bi ñu ngi ko tuddee ki nga xamante ne moom mooy Pa Ndaw Pape Ndaw waaye ay xaritam di ko woowee Pa Ndaw ah moo ko présent moo ko représenté waaye benn la bu papa représenté doom loolu rafet na ñu koy ñaanal sunu papa tey ñëw nga ci bërëb bi ñu ngi lay ñaanal yàlla sunu borom bàyyi la fi nga yàgg fi lool ci barki yonent bi te bi bañ a yem fii mu doon édition yu bëree bëri mbokk yi. ci combat ba le premier février ki nga xamante ne moom mooy Boubacar ñaa dafay sargal kan lay sargal ñu ne ki nga xamante ne nii moom mooy Big Pato Big Pato mooy ki nga xamante ne nii mooy takk der bi nga xam moom moo ñëw ci làmb te loolu don message takk der bu ñëw di bëri loolu message la bu fekkente ne gars yi am nañ dégg-dégg am na lu ñu ci war a gis am na lu ñu ci war a jàng loolu wane na ni làmb c'est de la noblesse làmb ki koy def buur la ndaanaan la kon gu big pato buñ ko sargalee kooku làmb yëpp la ñu sargal waaye suñu papa ki nga xamante ne nii liggéey bi tey jii bu tollee fii moom it am na ci cër bu rëy ki nga xamante ne nii suñu làmb bu ñu koy wax kenn du ko wax te tudd ko muy kan suñu papa Iba Kane mu daj lu ne nag ci làmb mu daj lu nekk ci làmb tey jii liggéey ba làmb yegg si fii ñu ngi lay ñaanal yow yàlla suñu borom bàyyi la fi nga yàgg fi lool sa ginnaaw ñu gis fa suñu mag suñu xarit démbale ma koy nuyu bu baax a baax di ko siyaare suñu père Sourou Fall sunu per euh, sama père As sama papa As Balma ñoom ñu ngi fii ak ñi nga xamante ñoom ñoo ànd ak mbër yi nga gis leen ñoom tamit ñu toog toogaay bu rafet bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax baax a baax mbokk yi yaakaar naa ne dañuy daal di songu liggéey bi bu ñu nee dañuy daal di songu liggéey bi dañuy jox ki nga xamante ne ni moom mooy Boubacar ñaa le promoteur ñu nuyu ko dalal ko ak jàmm te it di la ñaanal yàlla sunu borom defal la ndam ci bis bi bu Boubacar le premier février fils de Zallo ak ki nga xam mooy caatu ngéwél yaakaar naa ni li ngay def ni nuyoo bi rek lay doon après ci kanam dinañ gën a yaatal loo wax ci le premier. merci beaucoup Modou maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur sa sant vraiment di rafet lu assistance bi ndax euh, tey boo xoolee presse bi ñëw nañ. samay mbokk ñëw nañ suma papa ñëw na muy booy ndaw nga xam ne yàlla dafa def moo ma bokk njaboote man ak doomam bi nga xam ne muy papa ndaw mu tuddee combat spécial bi këram presque la ñu màggee euh, dañ fa daan nekk ba fajar musunu woon lenn loo xam ne rek lu doy waar la ba tey ji ba tax na tey kóllëre boobu ñëw ba ñu toll fii di nuyu association promoteurs yi ñoom tamit euh, dama leen di dama leen di dama leen di réserver benn mention spéciale parce que bi ma ñëwee ne damay dugg ci làmb ñoom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ma conseillé ubbil ma buntu may ma fit te saa su ne dañ may may fit léeg-léeg damay toog ba mu yàgg ma woo leen ne leen mais gars yi affaire bi mi ngi bëgg a métti de te ma bàyyi ñu ne ma déedéet da ngay dem da ngay continuer te dina baax bu soobee yàlla kon ñooñu vraiment foog ma ma ma nuyu leen. di nuyu tamit manager bi parce que ñoom liggéey bi tàmbali wuñ ko fii yàgg nañ si cadre presse bi muy ñoom Sowru ñoom As ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñuy ay ndaanaan di nuyu ndooy mi nga xam ne tey jii moom lay gën a moom i gën a jàppale si affaire mais ñoom ñëpp dañ may jàppale ñoom ñëpp ñoom ñëpp ndax euh, Ama Events amul frontière ñëpp si lañ bokk ah di nuyu nag euh, surtout sama maître wax nga ko sànq koo xam ne 2007 bu ma njëkkee jël plume si bind si làmb yàlla moom moo tax muy Iba Kane tey jii bu ñëwee toog fii jàkkaarloo man dafay am lu bëri bëri bëri bëri lu muy def si man te dafay wane ne rek euh, xëy na li ma doon jàngal tey jii xëy na leçon bi bu mokkalit li si des bëreetul kon nag ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñaanal bu baax di nuyu sama xarit Dembale sama confrère yëpp di nuyu nag surtout Big Pato ndax bigg boo gisee sargal bi big dafa nekk koo xam ne euh, dafa bëgg làmb big lépp lu muy def rek mu ngi fexe xool nu làmb di avancé wax nga ko sànq bëgg nitu làmb ñëpp te xoolu si xaaja seen bu toogoon ba une heure du matin man yenn saa damay dawal ba une ay mbokk alkaateem jàpp ma danga koy woomu jël la intervenir ñu bàyyi la nga dem je pense que loolu dafa am solo te du man kese képp ku ne si làmb laa yor numéro boo ko woowee am si moom soxla bu mënti doon da faj kon ku mel noonu si yu mel nii rek lañu am xam nga pour mën ko mën ko fay daal voilà mën ko delloo wàcc waayam donc vraiment maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñaari mbëri caa caatu ngéwël fils de Zal di leen jéggulu di nuyu tamit ñi si toog ñëpp ñoom lengs géant jaasi pël euh, nu mu tudd euh, Euh, góor gi si Dieng di nuyu ñëpp ah di nuyu di nuyu ñëpp combat bi mën naa ne yàgg na parce que biñ ko taxawlee du tey quoi. mais booy wax dëgg yàlla mosuñu ma indil benn pression du dara ils ont toujours été coopérants xam nga tey la waroon am. waaw voilà donc yàlla def ko le premier. kon nag yàlla na si yàlla yóbbu jàmm. amiin yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm mbokk yi dañuy tàmbali liggéey bi dañuy jàll ci li nga xamante ne ni moom mooy signature de contrat bi. rhinocéros moom moo war a daje góor gi si Dieng rhinocéros ñëwul waaye ñu ngi jaajëfal ak di gërëm suñu frère yi nga xamante ne nii teew nañu fi Babacar Mouhamed presse bi ah Mamadi ñu gis pël bu rafet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñëpp ak waa Géejawaay info góor gi si Dieng bisimilah kaam taxaw nii. góor gi si Dieng ñëwul quoi. jégalu këpp ko. yeesu gisuma ko. salaam maa ngi lay waaw maa lay fay Modou. acca ma bàyyi la nga nuyoo ko àdduna. waaw salaamaaleykum. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonante bi. waaw sant sama ñaari waajur. di sant mbooloo mi fi teew ñëpp. waaw di si jiital nag kenn ki mooy góor gi. góor gi si Dieng maa ngi koy nuyu lu bëree bari waaw mu ngi ciy teg loxo. mu ngi ciy teg loxo te ci làmb ji la gars yi war a xam ni làmb ji am na basketteur bu mag. waaw wan-wan laa leen di def rek. wan wan waaw. bu soobee yàlla. le premier bi la xam ni wan-wan am na ci làmb ji. sama toma moo ma ko jox. waaw waaw waaw gunge na ma yabal na ma. waaw te bii laa ko wan résultat daal la soxla. Rino nag xam naa ko bu baax. am na lu dax ñëwul dama koo fekk géej mu daw génn. yaa ngi dégg am na lu dax ñëwul. comme que li nga wax ne sànq da am loo wax quoi daf ma ñor torop da nga ne dafa soxor. waaw bu bés baa ngir yàlla na ma indil loolu. waaw na ma indil soxarte boobu. parce que xam naa ne maa ko gën a nekk xale maa ko gën a nekk xale maa ko gën a compétir waaw loolu leer na ma naañ. te bu bés ba na wane ni dafa soxor rek bu ko defee amateurs yi kontaan. bu laal leng si mu ngi nekk écurie Falaye Balde Géant maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou di nuyu assistance bi ñu fi teew ñëpp di sant yàlla di julli si bi di ñaan yàlla yàlla na jàmm yàgg Sénégal daal. Lynx. Modou Mbaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw di nuyu gars yi ci kaw nag pour gars yi dégg la. waaw mooy yoon maa ngi nuyu ga gars euh, di leen sant di suma gars yi di nuyu Zayan di nuyu promoteur bi ku ñàkk ñaan la ku baax la yàlla ko yàlla defal jàmm te làmb ji lu mu ciy bëgg dina ci am mooy réussir jàmm ak dal. dina ci am si kàttanu yàlla. Hmm. waaw bu soobee yàlla. nga xam nga kii waxal wax booy man damay wax si kaw kaw. wala xam nga xaw ma ko. xaw ma ko mais moom war na maa xam. Hmm. waaw. xaw ma ko de. su ñëw gisante benn yoon bii mooy deuxième fois ñu gisante xaw ma ko. Ah. wallaahi foo leen njëkk a gisante. Seras lañ gisante ci Pape Diagne Seras. mais le premier dina ma xam. bu xamul tamit le premier dina ma xam si kàttanu yàlla. Hmm? waaw looy indi. non lu lu laa indi. waaw dama jóge si sorti bu naqari dama war a ñëwaat wane sama boobu. nekk écurie bu mag mu écurie Fallaye Balde dafa nekk ak sam papa Zil Balde muy teg ci ay conditions yu baax. Mhm. moo tax le premier damay ñëw wane loolu dem sama yoon. ne day rectifié wu ci yow le premier. day soog man dafa am fu mu jógee man tamit maa ngi nuyu Assane Ndiaye sama promoteur la daanaka ñaar combat yi ma jógee moo ma tëggal ay écurie yu mag ak affaire yooyu yëpp waxuñu ñun suñu écurie bopp lañ yor écurie bu laa lañ yor. Mhm. ñun suñu bopp lañ gëm gëm ñooy affaire écurie yi bisu boobaa la première na xam ne écurie du bëre maa ngi moom ñooy bëre ñooy xeex ak kii bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko kii maa ko mën maa mën ku ko mën waaw ba la première mën na nekk di wax def lu ko neex mais bu arbitre sifflé tekk lay def maay diriger waaw ah, booba bu diriger day gën a yomb rek billaay ku xaf doo gis yàlla prix lay doon moom mënul yàgg moom làmb ji moom mënul yàgg moom fu mu. xoolal mu dugg ma fekk ko ah du ma dugg fenn ci géew rek laay taxaw dugg ma fenn fu ma jëm day taxaw ñu bëre de dugg ma fenn. Mourou Mbaye kon day gën a yomb ci man. waaw woote leen wooteel wooteel wooteel. waaw man maa ngi woo waa Pikine di woo waa waa Casamance waa Guinée di woo ñëpp di woo waa di woo waa di sant sama sëriñ sëñ Galas Mbacke sëñ Abdou Karim. di bëggee ñëpp di nuyu suma gars yi ku si mel ni Bamba Cheikh Sakine yàdd sama soose bi jaawi Saane du Njaay sama grand sama lépp day bàyyi léppam nax man di sonn ci man waaw di bëggee ñëpp di bëggee sama waa ñëpp waaw di sant sama papa Ama Baldé papa Zil Baldé maa ngi leen sant bu baax a baax. Ama Baldé mënu laa jur gëmal sa bopp mais maa ngi nuyuwaat sama gars yi mu fa àndal ah, ku ci mel ñoom Tidiane Thiat am moom di nuyu waa équipe bu laal ñoom Maodo Ama xam nga. di nuyu gaay fi toog di woo waa Bawal Casamance di woo suma mbok Bawal Bawal yëpp na na ñëw jàpp ci làmb ji tunu refan bi yëpp di nuyu waa Touba waaw di nuyu tamit waa Daaru Salaam suma bokk di sant yàlla bu baax di jégalu tamit sama waa koñ temps yi manifestation yi gars yi doon def koñ ba tracé nañ leen ñu ngi leen di tuubaat bu baax di jégalu xam ne mbër mu ndaw moom métti rek di woo Tafa Diop ñoom am xam nga ñoom kaal du ngay réew gaa yëpp nañ ñëw jàpp ci combat bi suñu yaay gédooy tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla wéral ay cëram di woo kuluhum daal képp koo xamante ni da ngay bëggee Géant rek ñu lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi ñu ñëw defaral waajo du yàgg dara ci kàttan yàlla ah di woo waa Caaroy ñu ngi woo ñëpp daal fépp foo xamante ni ku may bëggee mi ngi foofu nekk jur boobu ñu ngi lay woo ci kàttan yàlla nga ñëw jàpp ci nuyu sama yaay di nuyu sama papa di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla bàyyi leen suñu kanam bañ fekk suñuy njëriñ ci barki yonente bi jërëjëf mbokk mbokk yi làmb dafa am foo loo xamante ne ni moom lañ ko étiqueté dañoo wax ni ñun ñun waa làmb dañoo mal civilisé dañoo wax ñu ne ñun waa làmb dañoo bari dañoo dof mbokk yi bërëb bu mel nii est-ce que dof dina fi ñëw te police ñëw fii est-ce que bërëb bu mel nii ay xale daan dinañ fa daje ci Sénégal ci beneen domaine te amuñu sécurité te déggoo fi xeex déggoo fi xuloo waaye kaa leen tàcc suñu bopp waay waaye làmba rafet làmba neex di jaajëfalaat képp koo xamante ne nii rek làmb nga bëgg parce que ñun làmb mooy suñu passion làmb rek lañ bëgg làmb rek la am nañ leen gën a jàpp rek promoteurs yi ni ngeen def rafet na mbokk yi combat Diassy Peulh ak Plaignant magu ale lañ ko tuddee aale Tmax sama xarit bi maa ngi koy siyaare bu baax a baax waaye sunu papa moom moo ko teewal te ñun ñooy ñëw vers moom mu yëkkati ay kàddu ci bis bi balaa xale yi di jàkkaarloo Pa Ndaw sa doom la ñu tuddee bis bi tey lan nga ci wax. Euh, asalaamaaleykum. li ma bëgg rek mooy sama kóllëre gii nga xam ne tey fa ma dugg mu fekk ma fi doom ak sama doom ñoo bokk nekk fa ñu ne ci Amérique bés bi ñor ko lool boobu ba léegi mi ngi taxaw ànd ak man li may njëy sànni rek pour wax leen ko jox ko kàddu gi mooy yéen journaliste yéen moom bés bi drapeau bi yéen ko moom ndax Pawali su àndee yéen di jëflante yéen kan nekk patron lu ne defal na ko ci àddina Iba kan ne fi fu ne dugg naa moom ci làmb laay jaw ma di koy passage de service du koy gërëm keer 86 moom moo ànd ak moom mu di koy gërëm du koy sant kon nag maa ngi koy wax ne ko mooy bàyyam làmb ji bésam la Alboury Diaw soo amee sa kaddu yi rafet yoo sànni gisa doom nga sànni ko ndax heure bi dab na bisimilah. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tour ak seen sant di yëkkati sama kàddu gi nag di kaddu kaw waal yi ndax néew ko fii néew ko leen di yéen ñëpp te di leen gërëm mais nag gërëm bi yëpp mu ngi si monsieur Kane ndax ku la formé ba tegle la dans la circulation bi. kooku loo mën de moo ko def ndax kana ko formé ba mu nekk journaliste ba mën a dem fu mu dem kana ko def kon nag mbokki Pape Bali ñu ngi sant kan te di ko gërëm te di ko ñaanal service bi mu nekk yàlla na ko yàlla yokk ah Boubacar nag nga xam ne moo ko tuddee làmb ji kóllëre la te yàlla képp kuy sàmm kóllëre yàlla dina la sàmm kon nag bis bii nga xam ne taxawal na ko muy premier février ñu ngi wax Boubacar yàlla na ko si yàlla may ndam mbër ñu fi bëri nag lenn ma tax mu neex ma fii ñu dikk def face à face bu face à face daan am da ngeen gis oto ñëw gars yi indi jaas yi ñii indi nuy xeex ba vraiment tey discipline laa fi gis te lu discipline amul dara baax kon nag journaliste yi seen bés la Pape ñu leen di nuy yéen ñëpp te di leen sant ñu ngi woo nag waa Parcelles Assainies surtout waa unité 20 17 18 19 waaw ndukkumaan nag sa jolof nga xam ne waa bëlëb papa mi ngi bokk mbëndëxe yaayam bokk mbay naan ñëpp ñoo xam ne dëkk nañ ci diggante Pikine ak jolof tey jolof-jolof ñu ngi leen di ñaan nañ ñëw bés bi seen bésu doom la bés bi seen bésu doom la jarbaatu Max Mbergane la kon nag yaakaar naa ne jarbaatu Max Mbergane buñ ko tuddee làmb booba wàcc na Max nag sa jarbaat lañ tuddee làmb ji yaa yore organisation yaa yore lépp mbokk yi xamul ndar si làmb yaa ko xam yow leen bëgg bu bés baa ngi ñëw taxawal mbokk yi wax na ni def si làmb ji mbokk yi ñu ngi leen di sant te leen bii nag yàlla na leen yàlla jàppale li ngeen si wut yàlla na leen ko yàlla defal xol bi dafa fees ndax mënu maa mënu maa wax lépp jërëjëf am nga peleña mu yàlla tere aca <laughs> nuyool damaa tul jaas yi du ma dugg asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi fi toog di nuyu groupe waa presse café parce que tey dalal bi ñu dalal macha allah rafet na parce que tey bu ñu wanetoon bon exemple tey kanaa du ñu indi fii kon ñun mbëri tey ñu ñoo war a nekk bon exemple tey yenn bëri bi nga xamante yu ligsi ñun jombuñu mais tey bu fekkee tey dañuy woo signature ñi dem foo xamante ni di def naka su dul noonu ci ay terrain rek la yóbbu mhm. ñun war na ñoo mën a def biir biir pale war nañ faa mën a def signature pourquoi pas mais kon nag war ñun mbër ñi war nañoo mën a def war nañoo mën war na ko kii nii sama adversaire la duñ ay noonu làmb ji mën na neex pas ñu waxante lu ñaaw di ko nuyu di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu promoteur ñëpp di nuyu ñi ma àndal di nuyu waa Kër Massar di nuyu sama mbokki jolof jolof yi li paa bi wax dafa am solo loolu dama ciy gis sama bokk di laa dëkk képp ki jolof jolof maa ngi lay woo ci combat bi nga ñaanal ma xam ne sa doomay bëri di nuyu sama adversaire bu baax di ko ñaanal jàmm fu mu jugee bàyyi fa jàmm buy dem yàlla fekk jàmm. Mourou maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu fi teew ku ci mel ni sama mag bi jibi di nuyu gars yëpp xanaa di ko gërëm di ko sant rek mun waaye sama avance bi dafa yàgg si gars yi hmm. kenn nanguwul jël xaw ma lan la mais moom nee na daa tul de jaase ji du ko dugg après lay comprendre waxal ci xam après lay comprendre hmm. waaw du yàgg sax mu taxaw ak moom lu tax kii du ma moroomam lu leer laa la wax bu jour ba naa ñëw ba si plateau bi wax la ko boo amee ñu ko jàppale na leen teel a sant man ñaar ñi ñoo ma tax a jug grand combat bi bi laay wax su bëggee bu combat bi jàllee na ma jox ay bolok seet si ma ñaar ñi ñoo ma kii ak kii kii pare naa ci moom su ma amutoon lu may seet mën naa wax ni ma koy daanee fii mais nag kenn du wax lépp. li ma yor si mbooloo moom yoru ko man cinq temps laa jënd cinq maa ko ëpp la mbooloo maa ko daa ko bëre maa ko ëpp doole ak leneen lu muy yaakaar. waaw loolu bu arbitre sifflé dana ko woon moom bu fekkee bu fekkee cadre doole lay wax loolu duma ma ci wax bu arbitre sifflé da nga gis bu fekkee plan A laa koy tegal ak B plan A mooy xeex B B mooy bëri bu mu ci bëgg mooy choisir bu fekkee bëri nga yaakaar ci laa lay daan bu fekkee xeex nga bëgg dootoo ko defati. bu dee bëri la maa la ko dàkk foofu bu dee xeex la ko maa la ko dàkk. góor xool ma bu baax xool ma eh xool ma fii nii. ba ma ñëwee ba léegi mu xooloo ma yaa ngi may xool ba xooloo maa ngi lay jàng sa kanam gu lawet gii. dama laa lijjantiwul rek. instant bi nii dama laa lijjantiwul mais baal ba le premier rek incha allah lépp ngay xam. dégg nga maa lijjanti bu amee bu amee ñu ko jàppale billaahi na leen sant. na leen sant fii. doomu yaay doo ma plaignant la xaw ma nan la waaye bu jour ba naa paan sa kaw yow. déggoo ma de samay suupar sax tul jaasi ji du caw du dugg jaasi bi jaasi ñëpp la Mourou Mbaye sa jaasi la sax yow. la sama yoon ci jaasi ji. sa jaasi la. ah sama jaasi la waaw. par force dama koy daan bu nekkee. peleñaa bi sa peleñaa man mbër yëpp samay mbër lañ. jeex na tag noonu la demee. waaw maa ngi woo ñëpp damay woo waa suma ji nu mu jógee di woo mool yi mareyeur yi. ah yow da nga dem géej. non man ma géej sama mag yi ñooy dem géej. Ah. waaw man bëre rek. bëre rek yow ñaataat nga man 22 ans. xale bu ndaw la maa ngi woo waa Moralan yëpp. gis mel ni waa Ñexem di woo Yacine di woo monsieur le maire Yves Lamine di woo waa Mbour Mbour séeréer terrain Joola di woo gaa yëpp pour ñu ñëw ñu jàpp si. defal waay ñu dem suñu yoon di si mel ni Véro di woo Ibou di woo Déthié Déthié gaa yëpp ñu ñëw jàpp saawaay defal ko bagage di wax waa Morlan nag mbërë mbërë Morlan xubiri yaa mbëri boy mer ne kese do ñu bidi mbërë moom mbëri bu Morlan kese don xam na laa da ngeen defaral waaja bagage ngeen sañu waale yeen mo gërëm ko doon tuub mën a dóogur encore képp xam na encore yaa bi ow ñu ne ne yaa bi ow gëpp heure xam na yeen sañ fii yaa waaw man maa ngi woo waa sama mbokki jolof-jolof yëpp képp ku jolof maa ngi lay woo ci combat bi di woo waa Kër Massar gi ma yeewoo waa Daaru Misel di woo waa Sadio sama mbokki taalib yi maa ngi leen woo gis naa ñaan yi di woo waa Kaolack fu ma jógee di woo di ñëpp di gëm di sant Kër Massar di woo waa ruq kafe ga fi ñuy saafee nekk di woo waa ruq kafe ga waa daaru Baye Fall yëpp maa ngi leen woo ñi génn ci combat bi kii nag li koy wax rek lenn laa ko yërëmee quoi ci combat bi pour buy ñibbi quoi day ak jooy yi day métti billaay loolu rek laa ko yërëmee kontaan ci yéen ñaar ñëpp bu baax a baax a baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi ba tey waaye balaa ñoo jàll rek comme niñ ko waxee woon suñu papa suñu ndijaay Iba Kane faaw mu ñëw fii yëkkati ay kàddu parce que sa rax lañ tuddee drapeau waaye tamit sa rax moo tëgg làmb wala sa nawle lañ tuddee drapeau waaye sa rax tëgg làmb mu yëkkati kàddu yi am solo yu wax ko ci yow ñu lay jaajëfal bu baax bari na ay xale yu génn ci làmb moom moo leen génnee man loolu xam naa ci dara papa à vous la parole tey loo wax ci bisu le premier. waaw asalaamaaleykum. bilan asalaamaaleykum waa salle bi yëpp maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp di nuyu sama papa ndaw mu fi toog tey yi nga xam ne tey doomam la ñu tuddee drapeau bi muy la samedi premier février ñuy remercier bu baax a baax a baax a baax Boubacar Niang parce que Boubacar Niang li mu def dafa rëy trop parce que tey drapeau bi mënoon na ko dem tuddee tey ñi nga xam ne tey dañuy woote ne dañu yor xaalis ñi nga woote tey dañu yor alal mais Boubacar Niang dafa jël drapeau bi tuddee ko confrère am bi nga xam ne tey ñoom ñoo bokkoon di liggéey benn bërëb loolu c'était en 2007 ñoom ñaar ñuy ànd di liggéey ba kooku tey yàlla dimbali ko mu dem états uni continuer jàngam donc tey Boubacar Niang bu jëlee delloo drapeau bi Pape Ndaw ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak boobu Pape Waly nekk ak Boubacar ñaa loolu dañ si rafetu bu baax a baax a baax ñuy ñaan waa Sénégal yépp génn jour boobu la premier février ñëw arène nationale feesal ko mbër yi li leen di ñaan fils de Zallo ak caatu ngéwël l'histoire retiendra que yéen a ngi bëri combat boo xam ne combat bu am solo la combat bu leen mën a yóbbu fu sori la parce que ay espoiru làmb ngeen làmb dafay am yaakaar si yéen donc wane leen le plus grand fair play fair play lañ leen di ñaan moom la ñuy ñaan supporters yi parce que arène national lañ jëm te am na loo xam ne étiquette boo xam ne teg nañ ko deru làmb ne après combat toujours day am ay débordement ñoo ngi ñaan yaari mbër yi tey bu ñu ñëwee arène national nañu andi discipline andi fair play que le meilleur may wax ci Boubacar Niang ma lay remercier encore une fois de plus mooy yoon bi nga jël nii yàlla na la ci yàlla may ndom ndam yoon bi nga jëm nii yàlla nga ci tëgg ay grand combat sa structure Ama Events bii li nga si bëgg yàlla na la ko yàlla defal parce que le travail tey ñoom Assane Ndiaye la ñu commencé woon Assane maa ngi fàttaliku en 2005 bi ñuy ànd si Aminata Mbodj ah, Aminata waaw ñu ànd foofu loolu donc loolu yàgg na tey ba euh, Aïda Mbodj tey ba yàlla defal ko lii Fallou Ndiaye démb bu muy ñëw fii suñu suñu kanam la fekk donc Boubacar Niang nga nekk si ñun ñun lépp lu ñu mën si bés bi si jàppale la si wàllu bind si wàllu publicité incha allahu dinañ ko def parce que da nga bokk si ñun ñoo ngi ñaan ëllëg si quatre ans cinq ans tey nga dëgg ay grosse affiche affiche yoo mag a mag a mag tey vraiment damaa kontaan trop mooy mu jox ma micro mu ñëw wax si muy nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu sama frère Abdoulaye dembale bi nga xam ne ñoo cheminandoo ensemble boobu ba léegi mu mu mu liggéey si làmb loo xam ne tey waa làmb sax mënuñu ko fay maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax di remercier Boubacar ñaa di la ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm si bés bi nga jëm nii yàlla na la si yàlla defal jàmm yàlla na la si yàlla may réussite maa ngi lay remercier bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf kontaan nañu ci moom bu baax a baax di dox ñu jox ko kàddu ci combat bi parce que moom ak Pape boobu ay confrères lañu. te Pape Waly moom it journaliste la tey bu journaliste sargalee journaliste loolu doon na lu rafet journaliste yi nag ñoom dañoo carré ñoom dañoo strict ñoom ñoom kenn du leen lii man kay bis bi maa ko moom ndax sama mag a ko tëgg incha allah mbokk yi combat bu mag bi wax nañ leen moom lañ tuddee Siteu drapeau Siteu Papa Sow te loolu promoteur moo ko tëgg te promoteur bi ko tëgg moom moo diriger li nga xam association des promoteurs de lute muy pap Abdou Fall ñu bëgg nag Assane Ndiaye mi nga xamante ne nii moom moo fi doyen mu ñëw yëkkati kàddu ci turu promoteur yi ndax gis nañu sot sot bi ngeen di sot bu kenn tëggee mel ni ñëpp a tëgg léeg-léeg sax ngeen dajale tëggandoo <laughs> loolu doon loo xamante ne lu am solo la Assane borom borom borom. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu. ñu ngi nuyu ñu fi teew yëpp di sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi sant Serigne Touba bu wér di nuyu mbooloom yëpp mu du tey di am mbëgte di taxaw fii ak ñaari tànkan ah. beneen bi ñu ngi félicité Boubacar Niang di ko ñaanal yàlla li nga xam ne day soog a door yàlla jàppale ko yàlla taxawu ko ba fi mu ci bëgg a egg moo ko xam yàlla ko ci yàlla jàppale waa di am mbégte beneen boo xam ne dafa jël drapeau bi tudde ko loo xam ne mosul am mi ngi soog a ñëw nag mais mi ngi innové tey lii mu def dafa rafet dafa jekk tey ku jël drapeau bi jox ko Siteu Papa Sow Pa Abdou Fall tëgg ko donc muudu mooy li ngay wax rek xam nga koo bokkal teen daal yàgg laxasoog moom ay goj lii dafa rafet Siteu Papa Sow nag sas na leen ko lii ñu ngi koy soog a am kenn mosu ko am si làmb kenn mosul xelaat lii lu rafet la jour boobu Papa Sow dina ñëw bégal amateurs yi Siteu ñëw bégal amateurs yi ku si daan ñu jël drapeau bi jébbal la ko loolu rafet lay doon ku bëgg a gis bàkku Siteu yu bees yi ak Papa Sow nga ñëw jur boobu di wax na nag ci association bi ah Pape Abdou jiite ko ñëpp am nañ ci mbégte suñu ànd bi yàlla na ci yàlla jàpp yàlla teg si loxo di la wax kontaan na lool Boubacar fi nga bëgg a xam fi nga bëgg a dem yaa ko xam yàlla na ci yàlla taxaw nii nga ànd ak waa suñu làmb aussi rafet na trop yaa ngi liggéey ak ñoom bokk ak ñoom liggéey bi encore si lamb ji nice na Iba moo mon ami Demba Dembali donc yàlla yàlla def jàmm quoi mbëri nag dañ leen di sas aussi mbër boo xam ne mobiliser woo ñun dootuñu la tëgg de da ngeen di mobiliser jàppale seen bopp jaasi pële yow am na lu ma dégg ci gars yi ñu koy def di koy wax dëgg naa ñu naan bari nga mbooloo gars yi ñun loolu lañuy ñuy de mobiliser leen ku bëgg am combat da ngay mobiliser ñu tëgg la dañoo rafet kenn duñu ko yóbbul la ah. wasalaam jaajëf bon gars yi léegi dama leen di wax damay waaja dem Bawol TV damay waaj a bàyyi 2STV dem Bawol TV ci Assane Ndiaye daal tijji télé ci moom lay waaj dem incha allah Assane mi ngi may waaj a jël waaye Big Pato la ñuy sargal comme ni ma leen ko waxee woon te moom it faaw mënul ñàkk mu jug ñëw yëkkati ay kàddu ci bis bi chef chef paate boo ko fekkee polis nga xam ni ku baax la ci làmb boo ko fekkee police nga xam ni ku bëgg làmb la ñu ngi lay bëggee bu baax a baax tey bis bi dañ la ciy sargal la premier lan moo ciy doon sa kàddu auzu la mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illaa billaahil aziim waaw dañuy sant yàlla rek julli seen gërëm suñu ñaari waajur gërëm suñu papa yi toog fii gërëm sama collègue mbër yi parce que Modou mbay man dama am lu jafe ci ci àdduna dama am ay collègue policier am ay collègue mbër <laughs> loolu sax du dama koy wax avant tout aussi damay gërëm ki ñu accueillir fii Ahmad Yaya borom presse café parce que comme ni ngeen ko waxee yàgg i bakkan ak ba kii Assane Ndiaye bi ñëw ci làmb dañoo amoon ay objectif dañoo ñëwoon làmb xawoon a sooxe gars yi ku wax làmb bëgg xeex làmb mooy ñi nga xam ne dañu bëgguñ làmb bëgguñ cosaan dañoo xeex làmb naan làmb violence di dëkkal mbëri fu ñu dëkkul te ñuy làmb jàmbaar moo koy def làmb gor moo koy def parce que mbër mooy entraîné ba ñëw du am lu mu mu tëdd muñ mbër mooy am combat war dem bi sëriñ du am lu yóbbu sëriñ mu mu négocier ñëw bëree ci jom kon xam nga làmb gar bi moo koy def gor moo koy def parce dafa bokk suñu cosaan parce que ñu bëri dañuy réer ne làmb dafa bokkoon ci jamonoy nawet bu gars musaana musaanan bay ba nawet bi di jeex gars yi lekk ci dugub ji bees ji mbool mi ak mboq mi ci lañ daan ñëw nag di def ay mbappan mbappan moo daan génne champion yi te en général nag boo xoolee champion bi daan génne ci mbappan bi moo daan am li dëkk bi yëpp moo moo ëpp lépp daal kon làmb dafa bokk si ñun man mi di wax ak yéen sa maam da daan bëri alaaji Saliou Diop ci Saloum kon ñun ñëpp ay doomu mbër lan ay ay ay maamu mbër lan am kon tey ñu nekk président de la république ak ñu nekk police ak nekk gendarmerie ñoo ci yem man sama benn kilifa dama koy wax euh, comme capitaine Fall bi nekkoon central chaque jour damay doon naan paate maa dàq bëre big maa dàq bëre xam nga ne kon loolu dafa bokk si ñun kon ñun bu ñu làmb dañoo jàppale suñu bopp yow Modou Mbaye yaa yaa sa papa aw ma seen fay parce que sa papa ñu bëri xamuñ ko mais moom njëkk a teg plateau ne ma big di wala ñu wax ñun police ko mais aussi tey damay wax particulièrement dafa nekk ci milieu làmb di ci liggéey ci ñaari fànn mënoo nekk journaliste rek di génn ay mbër mais yemu ci chaque jour bind ci mbëri di génn ay mbër mais dafa dem ba xam ni moom war na mën a dugal loxoom ci làmb mu ànd ak ay peeram mooy association des promoteurs yi nga xam ne ni ñoom Fallou Ndiaye ak Abdou Fall ak ñoom Assane Ndiaye ñëpp ñu ngi fa mu ànd ak ñoom di ci yokk doole parce que li muy def nii dooleem la ciy def di ci yokk doole kon dañ koy sant di ko gërëm parce que man defalu fi dara làmb lu tax ñu may sargal xay na rek mbaaxam ak xëy na bëgg rek encouragé moo tax mais koy sant di ko gërëm parce que nag li ma defal nii rëy na si lool si man Euh, maa ngi woo képp kuy bëggee làmb di amateur ngay bëggee waa police gendarmerie douane ñëpp maa ngi leen di woo képp kuy autorité ci dëkk bi na nga woo jox xale yi billet ñu jënd di ñaax aussi sponsor yi sponsor nañ gën a ñëw jàpp ci làmb ji ñu ngi gërëm ACF bi nga xam ne moo ñu accompagné tey mais dañuy woo ñeneen ñi ACF informatique ñu ngi koy woo di woo ñeneen ñi di wax ni promoteur sonn nañ ñoom Fallou sonn nañ de ak ñoom Assane dañuy jël seen xaalis ci banque lépp tëgg ci làmb gars yi ko mais promoteur son nañ dañuy dem lépp mais Modou na gars yi di jàpp ci combat yi nañ jàppale promoteur yi jàppale xale yi parce que jeunesse bii ñun moom lañ am bu ñu leen jàppalee bañ liggéey ñun dañuy am jàmm mais bu xale yi liggéey ay métti suñu suñu ñun ñu yor sécurité bi kon daal ñu ngi wax ni ñu ngi woo ñëpp la premier amul mag amul ndaw na ñëpp daje arène national ñu ànd gunge suñu frère Boubacar Niang ñu jàpp ci combat bi jàppale jeunesse bi te xam ne ñun loolu rek moo ñu ñor mooy accompagner seen ni di woo waa police nationale tamit di remercier aussi sama kilifa yi parce que lii la di wax ni maa ngi jégalu ci kàddu aussi lépp su ma lu ma wax lu juum rek maa ngi jégalu jërëjëf. kontaan nañ ci yow bu baax a baax. Fils de Zal dugal taxaw caatu ngewel nii. alhamdulilah. ah. bis bi dina bisimilah rahmaani rahim. bisimilah bisimilah ni wàll yàlla waaw maa ngi nuyu ñu fi ñëpp xam nga sunu assistant ah, bi maa ngi nuyu xam nga nuyu promoteur yi nuyu journaliste yi waaw nuyu promoteur bu bëgg a ñaan di ko ñaan yàlla li mu bëgg xam nga waaw nuyu waa presse café xam nga la wax sama papa Mbaye Diouf xam nga moom fi la joobee nuyu sama mbokk yu bëri sama gars yi xam nga nuyu sama gars yi ma ñoom xaadim am afia sama tuddang bi xam nga nuyu Balde xam nga maa ngi ñëpp daal yaa nuyu sama sama adversaire Thiatou Nguéweul. waaw moo ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm sunu ñaari waajur di gërëm waayoof bépp waaw di gërëm waayoof bépp di jël nuyoo bi di ko teg si loxo xalifa général Baye Abdoulaye Thiaw di ko ñaanal yàlla bàyyi ka fi di nuyuwaale Cheikh Mansour Diouf mu sëñ Fallou Soye bu moom mi nga xamante ni moo nekkal foofu Serigne tuubaa di bëggee ñëpp di bëggee ñu teew si saal bi yëpp di bëggee waa resto bi di bëggee sama adversaire fils de Zalo maa ngi bëggee bu wér. xam nga ko xam nga ko moom. waa ki xam naa ko bu baax. seetaan nga ay combat am. waaw seetaan naa ay combat am waaw. Ah, wax si moom. waaw jàmbaar la champion la. mais li ma ko wax daal bu suur baax da dëggal boobam Modou Mbaye man neuf combat laa def maa ngi nuyu Fallou Ndiaye sama combat yu bëri moo ko tëgg xam ah, maa ngi koy nuyu bu baax nuyu Assane Ndiaye nuyu ñu fi teew ñëpp xam nga neuf combat laa def sama ginnaaw te képp koo xam ne jëflante naa moom bu baa yaay baay dama la yóbbu àdduna ñëw ma jàpp la daan la samay mag rek laa bëril nag waaw lam dama ñëw pour wane sama boobu xama parce que xama ma gën a xam daal Modou Mbaye waaw bis kanam waaw yee mu ne neuf combat la bëre musul daan waaw yàlla naa ko daan si barke Serigne Touba yàlla naa am ndam si kawam neuf combat la bëre man bëri naa samay combat moom bëri naa ay combat am champion la xam nga ko waaw xam naa Fils de Zalo xamu làmb ndax wax dëgg yàlla xaw ma si moom leneen. lu dul làmb mais maa ngi ñaan bu bés baa yàlla turaal ma si kawam may ma ndam lu seddu bi. nooy ñëwee bu bis baa parce que dama laa xam dama xam ni booy booy bëri si da daan dama lay gis ngay tegal ay sañ-sañ sa say adversaire bu arbitre ne prip da dox si kawam da ngay xeex ak moom bu bis baa kii sa digganteek moom loo nar. waa kii moom sama diggante ak moom ma wax ko moom bañ koo wax bu arbitre ne prip maa si kawam. waaw. waaw Modou loolu damay neex parce que man du ma nax kenn promoteur yaa ngi nii amateur yaa ngi nii xam nga samay combat chaque jour ñëw lool noonu mënul ñaax fi de ça lu ay man damay xeex damay bëre bëru suulee li ma koy ñaan na dëggal moom rek incha allah bu dëggal boppam dina xeex na bëre fu ma ko jàpp dama koy daan si kàttanu yàlla incha allah hmm. waaw incha xam nga na di wax di ratati man instant bi ñu toll nii Fils de Zalo wax dëgg yàlla face à face bi normal woon ñëw sax. ndax lan. non li nga bañ a ñëw. daa bari quinze ans yi toll nii jëflante moo des wax na jël tegu fële moom na wax rek man fii li ma fi gën a indi mooy pour woo ñu may jàppale mais kii man ak moom arène nationale laa koy xaar le premier incha allah ndax kii kii dafa am ay kàddu yu ma saani quoi te kii faaw ma woon kaddu du man ak moom. yow bëre nga arène ba. Mourou man mosuma bëree arène mais daal lu may leeral rek parce que muy naa ay tey du wax nar wu ñëw mais loolu du respect yaa ngi dégg parce que ni bu la tegee fay la xaalis fu la woo da nga war a ñëw wuyu yow bu ne ma gën laa gore Fallou Ndiaye mi ngi am na suñu combat bu ñu bëggoon tëg maa moom bu fe bu dul dëgg Fallou yaa ngi nii da ko woo téléphone ne ko fi de Saalum laa lay jox mu ne kooku moo mën te na ma la mënee woon ba léegi naa la mënee. maa ko daw moo ma mën fuuf mais saa bi ñu nii dawoon naa ko xam nga kon waaw waaw waaw waaw waaw kon sama yaay mooy teel a koo xam ne dañu ko jël kàddu bu jël kàddu mu naan lii ngay def lii ngay def kee xam nga xam moom man bu sama yaay def dara sama sama bopp la jëlee loolu la. parce que waaye yow am sama yaay yow mooy bu la kenn gën a bëri mu ngi leen xaas fay bopp mu ngi xaas fay bopp lu mel ni mel ni xaar bopp. du ma la teel lu mën a seetloo la ko dama yëpp a ngir teel a am na foo bàyyi bëri xam nga bu jëlee ma dama sant yàlla sax parce que am na lu mu wax lu bëri xam nga li nga wax bëri dina saa loolu la ñu def sax xam nga tey bu nee bu jël ñu xamaat si loolu bu yaa li ma taxaw bu jël di yàlla si loolu koy sax kii bisi taaloo moom ñu bëri si àgg mais bisi taaloo maa ko jël pour may ko bëri kii yow may ko dara laax ko la rek